sëñ Cheikh nag làmb moom xam naa ne du seen mbir man loolu man buur lu ma leer waaye nag bés bi daa ñor Sénégalais yëpp di combat Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 numéro 2 alias Cukkuli xam nga làmb suñu baaxu maam la li ma nit ñi soxlaawee du ay làmb muy faj aajo jàmm yàlla yi lañ ma soxlaawee mm. waaye ndem yittal na nit ñi buur danaa leen ci wax lu garaaw a garaaw a garaaw balaa làmb jaa deuxième émission bi amaat waaye nit ñi màggatloo nañ Balla Gaye ba ne mënatu dara waaye nañ def très attention li ma ci war a leeral nag deuxième émission bi laa koy leeral waaye Balla dese na lii ma laa wax nii mooy li wér Balla dese na man bàyyi ba ca kanam nga Ndiaye fajkatu aaju bi waaye sëriñ Cheikhouna bi moom ko fi mës a tudd keneen ku ko fi tudd la nee naa ko léegi bi gaa ñu ngi lay te léegi ngay waxee la ñuy waxee ni ngay la ñuy waaye nag lu barkeel bari soppe sëñ Cheikhouna ñu bàyyi la nga ñëw di leen sant suñu premier ak pour Dieu. wa inniya uhiisuha bika wa surriyataha mina saytaani rajim rabbi ausu bika mina hammasaati sayaatini wa ausu bika rabbi yahdurooni ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu waa réew mépp di nuyu waa biti réew ci gëj a gise gi ak gëj a wax gi ak gëj a génn gi la ci am loolu bu xasee nekk sa ndoddu amatoo droit fu ne nga génn fa da ngay loolu rek na ci liggéey bi yéen ñi ma génn tey nag am ngeen chance maa ngi leen ñaan yàlla gën a guddal seeni fan bisimilah. ndeysaan. Mhm. wax dëgg nag euh, liggéey bi dafa metti te dafa bari ci ndoddom wax dëgg yàlla loo xam ne bi mu ci nekkee léegi def na ay at yu bari allah waaye réputation baax la ci am foo nee seen Cheikh naa Ndiaye borom jaaro bi duñ ci teg leneen loolu ñànkatu yàlla la fàttatu aajo la waaye waa ñàkk caaxaan la si Cheikh na tey da nga dikk ak man ci ñetti mbir benn bi nga ne cuuraay yu bàyyi la ak ubbeeku li day dox ci néew kàttan benn bi day ci ndoxum siti benn bi dafay dox ci émuri di ñeenti mbir yoo xam ni kitaabu naa ni ñi la ko dàq ci réew mi dañ leen wàññi segam dàqloo ko ci réew mi sa cew na cuuraay bii ak li ko composé ak ci loolu muy dox di wàllu ubbeeku ak ak neexal neexal aw yaram buur wolof njaay day am lu muy wax nee na lu waay man du metti dëgg la gis nga lii tax na ñàkkoon am lii tax na ñi jeexaloon seen alal ñëwaat lii tax na ñi soofoon nit ñi bëggaat leen lii tax na njaay njaay njaay la tee tut marchandise la tee tut lii tax na nit jënd tut marsandiis mu def sa palaas bi weer jarut loolu saye jeex na lii ma yor nii cuuraay la loo xamante si nii juróom-ñaari cuuraay yu bokkut lanu boole juróom-ñaari cuuraay yoo xamante si nii du cuuraay bi kese dafa ànd ak téere booy takk ci place bu dee nit ku yor place la di jaay ak lu mu fa man di jaay bu takkee téere bi ci place bi suur cuuraay li ca place ba ñaari yoon ñett lu mu fa tegeti day jar buur man mënuma nangu naa nga di ko wax waaye kenn mënul moom ak la waaw loolu ak tooñ la dëgg la gis nga lii billaahi wal kitaabi ku aajo murta faj doo ko am ku aajoom nur to faju du am lii man aaju man jëflanteeg man aaju jo fajo laaj ak ndey ju liggéey hmm. yaar yi ma la wax bu niwut ci man bu niwut ci yow pour ñu jëflante du yomb buur lii ñi nga xam ne dañoo ubbi ab palaas te yàlla dogal amagu ñuy client ci ci ci façon bu nekk bu amee lii seen aajo faju buur lii mi nga dem ci réew yi mi nga dem fu ne hmm. cuuraay bii cuuraay ru bayra la cuuraay bii cuuraayu ubbeeku la cuuraay bii cuuraayu xaalis la boo ko xasee def ci place laa marchandise moo ca def day jar ubbiku la bayra la xaalis la mooy cuuraay lii li taxit waxuma tur wi bu dee nit ki day def lu mu génne ñu piraat ko lu muy génneeti ci ci ci internet day doon loo xam ne lu leer naññ la lu kenn tur piraat waaye buur lii ko ajum nurto fajuɗo jamɗe bayra la xaalis la ubbeeku la takk yeeg ci am ñoo xam ne dañoo sawru ci takk maanaam bu leen joxe yooyu takk da leen di seene dëgg la ñii mënu ñoo sangu mm-hmm. ñii duñ naan nga laaj waaye xanaa suur moom cuuraay ci néeg wala cuuraay ci place moom yomb na des na ñetti xal bu dee nit kee ko bëgg am bayra bëgg ci nekk ci koñ ñu koy coow wala nga yoro place loo yor loo njaay moo yor ni jënd ko wala ci loo nekk mu dox wala nga ne ci Europe ne ci ab place bëgg téere ba ngay takkee seen digg suuroo cuuraay di toog digloo bayra bi day ñëw mooy cuuraay di ci man ak ci kër gi ak fii rek nga ko mën amee du feneen piraat la wàllu ngóor a man du ma la ci takk bàyyi naa wax jooju ay at yi ku jëflante ak yow ci wàllu ngóora a bu del seena sant naa yàlla li nga genn garab la te yow dong la ko sama borom eh, sànq da wax ci sa biir wax ne mënuma nee na man nga ne mën naa waaye kenn mënul nag ak tooñ la li ci ngóor te ku ci jaar sant yàlla xam nga dama am lu may faral di wax gis nga buur sunguf mag borom jaari bi rek ngay dégg mu ne lii laa man ci ñaan yàlla lii mënuma ko man maay def loolu bi ma waxee ne wàllum faj luy sunguf ak naan xeet yooyu maanaam sama xam-xam gëstu bi yëkkagu fa damaa yem ci li ma man nit ñi ñëw mooy faj seen aajo waaye nit dana la gëm gëmin woo xamante si nii loo ko wax ak loo ko jox doy na ko njàmbat yi bari lool ci ñi am wàllum kàttan taggaay yi seen garab yi dara baaxu ci jàmbat yi bari lool ci ñi am sungufus ci feebaru ndoxum siti taggaay yi seen garab yi baaxul jàmbat yi bari lool ci ñi am hémorroïde bi feeñ ak bu nëbbu yàlla boole ma góor gu baax gu ñuy wax góor gi Issa Badiane mu jox ma buur sunguf soo xamante si nii mu ngi tudd góorug bawal góorug bawal mooy sachet bu weex bii ngay seen ku yàlla dogal nga am lii sunguf fii danga nga xëpp ba bëgg bu dee da ngaa yoroon jabar ju ndaw ju reew ju la tegul fenn boo amee ci góorug bawal gii moom bu soobee yàlla respect ko moom bis ba nga ko jëlee ca la la koy jox mm. xamu nañ koy naanee dur biteel booy jëloon de duñ ko foroxal ba mu forox dogal koo jox ni ngay def kaasu kafe ak tàngal ndox ba mu tàng nga jël kuddu def ci naan ko suba ak ngoon billaahi bu awraw yi delloo woon da koy indiwaat boo néewoon kattan da indiwaat kattan ke te day dolli awra yi ba mel ni nga bëgg. moom góorug bawal. mooy moom góorug la soo xamante si nii laa wax man man ñeme naa ci engagé lu ne ndax xam naa ko. wolof njaay nag nee na la mu saf ka ko lii ma ne gars yi nanu bàyyi sunguf yii ni ñu leen di jox di ko xoj ci biteel ba mu forox jox leen ngeen di naan loolu in loolu loolu jalis sax la lay lay indi waaw insuffisance rénale gis nga lii boo ko defee cëb kaas da koy bàyyi une minute ba garambay wàcc suuf nga doo ko julóor naan juróom benn fukkaat bu sa boo ko amoon laa bëgg indiwaat sa kàttan nguuru baalu ko indiwaat ko lii di nga xeex ci saayir ak ci baatin dangay xeex ci saayir da ngay xeex ci baatin jigéen moom da noppi na laa yëpp ci te jigéen ñi mën nañoo muñ ñàkk dépasse mën nañoo muñ ñàkk lekk ñàkk naan ñàkk dëkkuwaay bu baax waaye bu kër gi manqué boobu nga gis ñu saase lii nag day indi loolu kattan dama koo néewle dama koo gàttale sama mën niw daa woyof dafa nangam ak nangam seen ceebu naa njaay borom jaaru bi indi na solution li mu wax am na solo de ay at ci ginnaaw boo ko nee da nga jëm leen mu ko jàngu def na ci moom li muy def ci moom góor ba war a gi noonu seen ceebu ñu doxal émori di jàngoro ju naqaree faj man leneen nit woo ma ne ma woo naa ci nangami sëriñ ñu ne ma lu ne waaye picc ba ba tey sax fa mu nekkoon daa gën a yokk wala ba xam nga hémorroïde bi feeñ ak bi nëbbu ku ne la mën naa faj hémorroïde laaj ko hémorroïde nu muy def ci doomu aadama xam nga ne bi feeñ li muy bon bon bon bi nëbboo ko gën a dansé xam nga ko gis nga bi nëbbu bu la yàlla nattoo ba mu chronique ci saw yaram dana mujj gi boo toogatee yàgg jigéen gi indi fuy sa yam hmm. da toog ci parab jug sa tuba gi tax rëpp ak deret waaw waaw waaw mooy hémorroïde bi fee bi nëbb moo gën a dansé ñi koy opéré lu ñi ngi def dansé kenn du ko opéré kenn du ko opéré mu wér da ci am garab yoo xam ne maanaam. fajum cosaan la garab a ko mën a dindi gis nga lii buur bu dee bi nëbb la bi feeñ nga xam ne moo feeñ doon picc ne ci fi ngay demee wanag da koy dagg bu dee bi ne ci sa biir nga xam ne gisoo ko day jam rek di metti di génn biir buy daw la koy def raxas ko ba mu set wicc wicc wicc wicc wicc wicc wicc nga jug doxe say soxla ku ma ko xëy jox ngoon gi laa wax di ma wan ak vidéo woo waat ma ne ma sëñ bi li nga ma joxoon ñu jox ma delluwaale sa xaalis fa sensé mooy lii hmm. man la sa bu doon xaalis yaa xam bu dee orange moo la annulé ko ana ko sañ wax li dudu hémorroïde billaahi wal kitaab yi mi nga mi nga bëgg a rey sa force hmm. mi nga bëgg a rey liggéey liggéeykat ci bureau yi yi xam ne dañuy toog vingt heures sur 24. ku ko ci am mu sonal la xanaa boo bëggul mu saafara woo de man nga tegge tekki borom jaara bi waaye boo ñëwee ma dindi ko ci bés bi. ci bés bi. billaahi wal kitaab. mu de nee naa leen lu waay bi wat day doon dëgg sëñ Cheikhouna dama wax ni ñi may seetaan man buur ak di ma dégg amul ku ma ci masa woon ne ma sëñ Cheikhouna jëflante naa ak moom sama xol sedd yàlla sedd na ko sunu dernier point bi mujj ndoxum siti ñi waroon naan ko toppum siti léeg-léeg sax kuñ ci jox ay garab ak sunguf ak yeneen ba faf mbir génn na ci yaram woo ba mujj ko ëpp daal lii mooy ma jaaxal ci jamono. waa xam nga siti dana jàpp jigéen dana jàpp góor dana jàpp mag dana jàpp ndaw bari na jigéen ñooy gis nii seen bopp yi ñi nga gis ñuy teggi pirig buñ suñu mën seen bopp yi nga daw. bu ñëwee dama koy dindi siti bi day dañ bëri na ñoo xam ne ñu ngi solo kawas ay kawas tànk yu ñàkk ko waral loolu siti la mm-hmm. bari na xam yooyu gis yu ñu naan xam na du xam site carax booy ñëwee ma ko ndoxum siti nag day feebar bu day feebar bu nit tudd woo tam naqaree faj faj ko jafe nag sase bii loolu ko tax a jug siti du ma ci sori li sax du ma ci sori mooy li ma ci yor dama ko wóolu ku ñëw ba ci kër gi daagu ba ñëw wala nga woote ci numéro bi ba ñëw da nga xam ne du ma ci morom kenn buur damaa bëgg ñu ne ci réew mi ñu ndax seen njaboot yi dañ leen a war gis te dañoo war a ami këyit ah, ne ñi ci réew yi damaa bëgg nu ñibbisi ndax danoo am ak njaboot war leen xool delluwaat te problème këyit da leen ne téye te damaa génnaale saafara si maam aajo bii tax mu saafara dama koo génnaale muy wàllum këyit solution billaahi wal kitaab yi mooy ñi nga xam ne dañoo déposé kayit mu yàgg fa mun ta sotti nan ma woo ma wut loo leen biteelum ndox fanu ne juróom-ñaari fan ñu jot seeni kayit sept jours kitaab bi li tax ma insisté ci nii mooy aaju bi laa téye sama loxo nii ak ñi fii yor seen xaalis bu seen loxo bëgg a dugg ci réew mi mu tag nan ma woo yor jeex na nanu ma woo mu jeex takk bu dee wàllum këyit loolu sa safa loolu jeex na. a a ñibbi te nit ñi wutu ci kaaraange. waaw protection gis nga yàlla dafa bind ay jaamam yemalewut yii ma gis ak yii ma war a gis muy ñëw na yi wuti ci kaaraange bu baax. Hmm. nit ñi yéene tuuti kenn. maam nit ñi yéeneetul seen morom yi kenn mm-hmm. da nekk nit mu yéene la nga dee suba mam jaale si la wala nga nekk nit mu yéene la ak ñàkk bam may la na nit ñi wut si kaaraange mm-hmm. dégg bu baax numéro yaa ngi affiché ku aajum not fa faju da ngay jàll doo doo ma woo ku liggéeyut doo ma